la lumière Donc à présent, l'entrée sur scène du responsable de la production de l'émission Tapis Rouge avec sa co-présentatrice Sorna Ramatoulaye Diop Madame Ndiaye, Rocaille Diop, pardon, Sohna Rocaille Diop dit Madame Ndiaye. tabarakallahu asalaamualeykum waa Medina Cheikh Tijani ñoo ngi leen di comme niñ ko dit, nous ñëpp tous ngi ñëw ci émission bu s'appelle wax tapis rouge tapis rouge c'est une émission à vocation culturelle. boo xam ni dafay dévoiler talent yi nga xam ni moom moo nekk ci xadara bi waaye aussi ñuy invité ay personnalité yoo xam ni dañu am ay taxawaay yu exceptionnel yoo xam ni war nañ ko fësal ñëpp xam ko ci xadara bi ñuy def loolu lépp ci ndigalu ko tedd ki ñu amul kudul moom di suñu sang di sangu jamono ak di sangu ludul jamono di Maulaya Sayyidi mohammed el cheikh al Imamul mahdi al muntazar alayhi salam. Nous ñuy defando émission bi ak suñu jigen di soxna Roqee job gis ka ni mu présenté wu ni rouge blanc bu rafet bi tabarakallah lepp rek di delu ci ci bis bi waye di delu ci itam émission tapis rouge soxna Rokhaya dafa mel ni itam am ngay gan yu exceptionnel yoo xam ne war na leen dalal ñu bàyyi la nga présenté wu nuyoo balaa ñu mën introduire suñu gan tabarakallah asalaamaaleykum mbokki Medina Cheikh Tidjani nuyu nañ leen ziyaar nañ leen ci ni mu gënee tedd di fas yéene nag tey jii ci bisu commémoration wu euh, mawlidu nabi di Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa ñu fassiyene tay sargal ay nit yu nga xamante ni nañ ñoo bégal yag nañ ñuy di tagal rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maulana cheikhu tijaani radiallahu taala anhu ak sunu sang bu tedd bi tay ji ñu fassiyene dérouler tapis rouge pour bégal leen sargal leen ci bis bu tedd bi ñu fassiyene nak dans un premier temps introduire ben artiste bu kenn dootul présenter ci xadara bi ku na xamante ni originalité am kenn dootu ko naatable mu di Soxna Astou Diop waaw kon ñu bàyyi Soxna astu Diop mu ñëw Soxna Astou tabaarakallaahu ñu war introduire nag suñu beneen gan ku kenn dootul présente aussi ci xadara bi Nous xam ko di Seydi Souleymane Cissé kon ñu introduire Seydi Suleiman Cissé sous vos applaudissements tabarakallah Seydi Souleymane il est wax que c'est une émission pour c'est entre nous et vous tabarakallah

waaw suñu quatrième et dernier invité mooy ki ñëpp xam itam ci xadara bi ñoo xam ko ci tedd ngaam xam ko ci mbaaxam xam ko ci oyofam xam ko ci xam-xamam muy l'ami du siècle moi suñu xarit di cher Bashir Diouf ñu est di ñaan ngeen tàcc ko ñu accueillir ko ci plateau tapis rouge tabarakallah tabarakallah Cheikh Bachir tabarakallah ñuy am ne mbégte l'ol di recevoir sur le plateau suñu invité yu tedd yi la war a leen jox kàddu gi ñu présenté wu nuyoo balaa ñuy dugg ndeysaan ci rappeler rek c'est une émission boo divertissement spirituel lañ ko divertissement spirituel Moi loo xam l'air le, mais l'air le bu dund ci mu nekk lu neex mu loo xam dañ al mahdi al muntazar ci premier gàmmu ci début de mission 2022 2075 tabarakallah kon dañuy jox kàddu gi Seydi Souleyman mu présenté wu après jox avant ñuy ñëw ci suñu invité billahi rajim Allahumma salli ala muhammadin il fatihi lima والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم مبكي تدي نيغلين دي نيو بوباخ غيناو بي ني نيو سونو سانغ بو تاد بيغا خامني امونو كودول موم ياكارو ني gëmuñu ko dul mom muy mawlay seydi mohammed al sheikh imam al mahdi alayhi salaam ñuy ñaan mu yàgguñu sàmm yàgguñu taxaw ci fànn yépp du nuyu mbokki plateau tapis rouge bi yépp di ci jital présentateur yu tedd yi masamba Massamba ak soxna Roqeya mu tedd mi di walé Seydi mohammedul Basir Diouf di ziyaare maam Maodo mu tedd mi ak ku tedd ki ma dendal muy soxna Astu Diop waaw su ko defee rek ñuy ñaan yàlla tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim terminé ak alhamdulillahi rabbil alamin ci question yu tedd yi nga xam ni moom la ñuy xaar pour répondre ko incha allah asalaamaaleykum waa axiru zaman ak ñi koy ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen wàccee seen dañuy sawar ci jàkkaarloog njaboot gi nga xam ne ñoo jëkk yeewu njël toog ci sijaada yi di bàkk yàlla wante mujj ci sijaada yi di sagoo rasulillah barke xutbul axtaabul kabir suuf si tey yàlla dogal ñu teg fi tànk suuf si la cheikh al xalifa juddoo macha allahu muy sëtu ali boy njaay naari mam roxay njaay mi jëloon alalu ndondoom terale ko diine lislaam wante cheikhu tidiane ca maxaama ya ca mayya ca tolluwaayam mu ne leen dencal naa leen keneen kuy lam yëzal di xaatimi kulli awliya mawlaaya seydi mouhamad el cheikh ibnu ahmad ibnu mouhamad atijaani chérif moo tax su ma ko xoolee ba mu yàgg ma ne waa axiru zaman what's happen while breast feeding whole baby the mother is thinking about Medina Cheikh Tidiane Chérif yëf yi fii la كادو كي شيخ مودو جوف تبارك الله من نيو زياره تبارك الله بحر العلوم بحر الغيب العلوم تاج العارفين الامام العارفين كسب شيخ دفلني سانغي بنين مولاي الشيخ احمد التجاني لنور الله تعالى بنور رسول الكبير لنور الأعظم بنور نور الأنوار شيخ موي بحر العلوم بحر الغيب العلوم مولاي شيخ أحمد التجاني موي تاج العارفين خم نكي ni إمام العارفين لحقيقة aarifiina cheikh na tijaani mooy borom xaqiqatu muhammadi sayiduna wa maulana acheikh shuyuqi li ahmad annuuri bi tijaaniyat al uzna jërëjëf saydu muhammad al cheikh waaw bismillahi arrahmani irrahim gannaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi gërëm mawlaay cheikh ahmad tijaani sant sunu sëriñ sunu kilifa sunu lépp muy Seydi Mouhamed El Cheikh nga xam ni tey bu nu téewee micro nii rek di wax moom moo tax moo tax du nu dañ jamono ju nekk di ko delloo njukkal di kontaan bu baax ci émission bu tedd bi nga xam ni mooy plateau tapis rouge di ci jiital alkalif ma alxalif Massamba Coulibaly ah, di rafetlu taxawaayam bu baax ak Seyda Soxna Roqeya tabaarakallah ak sunu soppe soxna Astu Diop ak sunu soppe bii nga xam ni mooy Cheikh Bachir tabaarakallah di kontaan bu baax tabaarakallah Cheikh Massamba incha allah. kàddu gi suñu xarit Cheikh Bachir Diouf ngeen tàccul ñu ko bu baax tabaarakallah. mbokk yi asalaamaaleykum ah tabarakallahu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Mawlana Cheikhu Tijaani mumiddi kulli awliya rahmaani abil abbaasi ahmadu Tijaani di sant di gërëm Mawlana Sayyidi Muhammad al Cheikh Imam al Mahdi al Muntadar di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel waaye di ko sant di ko gërëm bu baax itam tabarakallahu di nuyu sunu présentateur yi baax yi cheikh Massamba Coulibaly te waa gay bu tuddee ko Mouhamad Coulibaly soxna Roqeya madame Ndiaye ñu ngi lay nuyu di bu baax tabarakallahu ci seen taxawaay di nuyu soxna astu mu baax mi Cheikh Souleymane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tabarakallah di nuyu sama waykat Cheikh Alhaj malik maudo Diouf tabarakallah di xaar rek pour tontu seeni question incha allahu taala ñu fas yéene ubbi waxtaan bi ak suñu xarit suñu soppe soxna Astu borom style bu original bi ñu bëggoon a xam rek soxna Astu artiste bu mbanga bu ñepp reconnaître ñu bëggoon xam sa inspiration naka la la diké naka nga démé ba dugg ci mbirum euh, taalif ak ci mbirum tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma sha allah soxna Roxaye Diop madame jay ndeysaan suñu njaayen bi jay santam ñu lay nuy bu baax di la ziar sha allah di di contane si laaj bi ñu laaj parce que dama naan lépp mu ngi jóge ci leeru jofeel yàlla dafa dogal ñu xam xutbul axtaabul kabir macha allah laf cat biñ ko xamee it ñu ëmbal ko cofeel goo xamante ne ni ñun sax dépassé nañu te teganteeguñu ak moom bët yàlla dogal ma tëdd benn jour duma ko fàtte sama troisième doom maak moom ñu ngi tëdd ci lal bi war a nelaw mais mënuma nelaw xale bi tam nelawul sama xol bi rasuli rek rek laa ci doon yëg donc loolu mënuma ko nelawaale te boobu maa ngi doog a xam sang bi mu mel ni yëg-yëg boobu tam moo dogal xale bi tam muy fàtki ne xale bi tam yëg loolu ma dem sama armoire muy génne benn agenda ndeysaan ñu tëdd ci kaw lal bi maak moom ñuy bind maak ñuy bind lu ñu bind jour boobu nelawuñu daanaka ba heure fajar jot ñu bàyyi loolu julli nga xamante ne kon loolu mbiru suñu borom la te leeru cofeel doomu aadama mën na si jële lu nekk macha allah man noon rek laa ko jàngatee loolu moo waral nag bu mënatuñoo dund sans ñu way Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh parce que mooy suñu ruux mooy suñu deret mooy suñu siddit mooy suñu lépp ñun leneen lu sang bi amul ñun bëgguñu leneen lu sang bi xoolul ñun xooluñu moo tax dama koy xool ba mu yàgg ma ne ko yaa Seydi dana wa habibana wa naa wa wasilatana ila maulaya sayyidi mohammed el sheikh ibnu ahmad ibnu mohammed atijani Sherif ndaanaanu Sherif buñu biñu fayé ka fayee rasulillah ki tax su ngeen yewo di deg sama akhiru zaman akhiru zaman ka na ni muy suñu nice good fine macha allah yal na yàlla wéral baag ak xam-xam tabarakallah kon deg ngeen soxna astu job limu wax ak ay débéem ci walu way mu melni dañi dem ci ki nga xam ni kenn dootu ko présenté muy Cheikh Maodo juuf te ñuy wax ni ndeysaan soo déggee baatu Mbaye Donde am na ci kër gum lay yóbbu soo déggee baatu Abdoul Aziz Mbaye am na ci ëtt bu mu lay yóbbu waaye dafa mel ni itam bu Maodo Diouf yëkkatee rek xel yëpp dana dem ci Medina Cheikh Tijani Chérif tabarakallah ndax baatam daanaka moo ñu accueillir ñu ñëpp ñëw wàll si ci mission bi kon Cheikh euh, Maodo. Euh, laaj bi ñu laaj soxna astu moom lay lay moom lan lay laaj maanaam sa début ci wàllu way maanaam yow lan ma la dugal ci way ndax da nga nekkoon waykat avant ngay dugg ci mission bi wala da nga dem ba dugg ci mission bi way dugg la ngay commencé di way moom la ñu bëggoon xam tabaarakallah waa tabaarakallahu Cheikh Massamba Coulibaly alxalif ñi ngi kontaan bu baax ci question bi waaw ñun nag yàlla dafa dogal ci ñun sunu famille di sama wayjur bu góor ñu koy wax cheikh gala diouf moom da daan tagg yonent bi waaw da daan tagg yonent bi ñu bare xam ko te sax yàlla dogal na moom euh, ci kini xaadiriya ki ni wax sàmm njóoba faal bu nekk ci euh, gendar moo ko jàngal alquran te kooku euh, ci tarixa xaadiriya la bokk moom da daan way ay xaadar waaw ba mu fa jógee ñu jël ko yóbbu ko kër sëriñ Abba Sall fala wàcc ñaari yoon yàlla dogal sëriñ Abba Sall may ko werd boo demoon tey jii kër sëriñ Abba Sall nga laaj ko fa ni Galo Diouf rek bu nu xamee ni sax yow doomam nga dan lay fonk ci kaw ndax euh, lam fa bàyyi tabaarakallaa ak volonté bi mu amoon wante moom comme moom jëlul loolu rek yamale ko ci boppam xam nga fii des fois da ngay gis ñoo xam ni dañuy nekk woykat mais duñ ci nampal seen njaboot waaw da ngay gis koo xam ni yàlla da ko may lenn maanaam am na ouverture bi mu am mais ouverture boobu noonu di ko du ko exploité ci ay njabootam moom deful noonu moom da daan def chaque jeudi wala chaque lundi lundi altine ci guddi mu wax njabootam yi boobu man fekk na ma fa ak samay mag mu ni tey bu kenn génn kër gi waaw ñu ni ko lu tax bu nu génn mu ni parce que tey ji ci guddi dañuy tàgg yonent bi waaw su ko defee moom mu génn ay soxnaam génn ay doomam yëpp génn mu lal basang ñun ñëpp ñu toog waaw bu nu toogee mu génnee xilaasu zahab ku mënoon waay la nag ndax man am na lu ma fekk ci moom waaw <laughs> mënoon waay des fois sax ma dajak ay xaritam ñun ma sa papa la daaxoon waay waaw <laughs> xam nga après mu génnee way bi mu gënoon bëgg nag mooy xaw xawsul baraaya waaw ah, ren bëggoon nañ ko génnee mais yàlla dafa dogal eh, mujjul antu la su ko defee mu way ñu awu ko waaw ñuy def noonu mu ci nampal ay njabootam ba yàlla dogal l'an 2000 mu génne àdduna moom bi muy génne àdduna moom boo 13 ans la am jour bi mu génnee àdduna maa ngi koy fàttaliku ci noonu rek après ca lañ fa formé daayira man nag man nag ci noonu ca laa ci laa commencé di bëgg way nag waaw yàlla xam na di ko bëgg loolu moo ma attiré mais man yàlla dafa dogal Abdoul Aziz Mbaye moo doon sama idole waaw ci noonu gis nga Cheikh Aline mi maa noonu la ñu yàggee waaw parce que époque boobu may wax nii l'an 2000 bi nu formé daayira boobu boobu mi ngi nekk xale bu tuuti boobu mën naa ni 11 ans lay am daan na ñëw ci daayira ba man ak moom ñu topp suñu ginnaaw ñu topp suñu ginnaaw mag ñi mën naa ci sax lim ñaari nit mooy benn magu Ablaye Fall bu ñuy wax Sadikh Fall ak ku ñuy wax almaami ah Cheikh almaami gis nga moom la sang bi dénk wàllu courant bi fii. moom moom ma njëkk jox micro Cheikh yi moom ma njëkk jox micro parce que dan daan ñëw mag ñi man ak ñoom Alioune Dieye toog di leen aw léegi su ko defee mu ni yéen xale yi nga xam ni ñoo topp suñu ginnaaw nii du aw mais dañ leen di jox ñuy way su ko defee nag mu jël micro bi ndeysaan ni bu nu wayatee ba 11h rek tabaarakallah nanu jox Cheikh Maodo mu barkeelu ñuy commencé di def noonu xam naa lépp di fi xaj dañuy tënk rek ndax am na ñu war a jël kàddu waaw ci noonu nag ci la dem xëy na tamit loolu moo dimbali jeexital boobu am ci ñun. yàlla di dogal ñuy continuer di way di way di way xam naa ci diggante bi dañ koy résumé rek ba xam Seydi Mouhamed El Cheikh waaye xam nga li tax booy way te amoo kilifa li lay gaare tout le temps mooy doo am jeexital ci way gis nga way boo koy def boo bëggee waa xay bu déglu da ngay wut kilifa ñun Seydi Mouhamed El sheikh moo tax waa xay bu duñ déglu waaw te loolu ñun xam nañ si dara waaw <laughs> ci entre parenthèse euh, ci entre parenthèse bu ndaw rek gis nga bayit yi Aly Ndiaye di bind bëri nañu gis nag bëri na am ñu ma ciy laaj gis nga dafa am benn jamono ma gént bayit yi boobu Alioune Ndiaye da ko bind daan ko indil sang bi su ko indee sang bi jox ma ko ma way des fois sax man ma génnee bayit yi mais moom yàlla dafa dogal na moonu daa kon bind sang bi ko may da ngay dégg sax sang bi naan Serigne Hadji Malick am na Serigne Alioune man am naa Serigne Alioune gis nga bayit yooyu pour wax la nag ni la sang bi ñun fu nu àgg mënu fa yóbbu yàlla dafa dogal bi ñu ko commencé bind époque boobu muy 2019. yàlla dogal ci guddi gi ma génn ma gént euh, man ak Cheikh Alioune Dieye boobu am na ñoo xam ne nekkaguñu woon ci xadara bi Ama Ndiaye mi ngi fi woon mais am na ñoo xam ne ñëwuñu nekkuñu fi woon tabarakallah parce que man ak Mbaye ak Mbaye ak Cheikh Ndiaye ñoom nekkoon nañ ci xadara bi di tagg yonent bi nekkoon nañ ci euh, feneen di tagg yonent bi avant ñu xam sang bi ñoom ak seeguñu woon Cheikh Alioune man ak moom ñu yéeg ndeysaan ci gént gi ñu yéeg ci benn mat la gis nañ ñu traversé benn dex dana wàcc rek fii mooy géeju Alif Lam yàlla xam na affaire boobu jaaxal ma mu ñëw ma ni ko man sang bi man alif ram ra bi ngay ngay nga doon jàngale parce que sange bi époque boobu euh, am na benn ngénte Seydi Cheikh Diouf bu mu ñëwoon ba jàngale fa alif ram ra yàlla dogal bi ma ko waxee mun ma bayti la mun ma bayti yi ngeen di way moo leen yóbbu foofu tabarakallah foofu rek laa yem tabarakallah yeneen question yi ñëwee rek ñu mën ton incha allah. jërëjëf Cheikh Maodo bon ñu jublu si suñu beneen invité Seydi yaa Seydi lan moo la dugal ci way ak tagg yonent bi salaahu salaam. Ah, tabaarakallah di kontaan loolu ndeysaan ci seen question soxna Rama Roqee Njaay ah, macha allah ñun nag suñuy début ci wàllu way daanaka mën nañu wax ni benn amur la boo xam ni dafa yàgg nekk ci ñun étant jeune comme bi ñu gënee nekk xale yàlla dafa def. dañu bëggoon wayantu comme ni ko xale yi di defee rek way boo dégg rek nga nekk di wayantu suñu waa kër dañ leen daan ak si tout le temps <laughs> chaque fois bu 14 heures jotee ñu naan leen waaye yéen xale bi nekk si digg mbedd mi yor ay tabala di tëgg ak di wayantu moom kan la <laughs> su ko defee ñu ñëw ni leen kii de suñu doom la pour wax leen rek ni leen comme cofeel boo xam ni yàgg na tax ñun ñu bëgg way loolu yàgg na ci ñun ba tax maa ngi koy fàttaliku temps yi ñu nekkee école élémentaire bu buñ fa mas a teg ci wàllu way yàlla daf may dimbali dama koy jël parce que loolu dafa nekkoon loo xam ne yàlla moo ma ci mayoon daal ba lépp loo xam ne ay sketch la yu ñu daan def sax dañ may consulter fu ne pour partie yi nga xam ni dafa am wàllu way ñu ma koy dénk pour ma leen koy assuréel léegi nag yàlla di def ñuy dem ba découvrir xadara bi xamante ak sang bu tedd bi nga xam ni moom xamante ak moom foofu la ngëneel yëpp nekk mën nañu wax ni way dans dans dans son vrai sens du terme moom sang bu tedd bi lay Seydi Mouhamed El Cheikh moo ko def ci ñun ndax yàlla dafa def comme comme guddi yi tedd yi ñu nekk rek nga xam ne fukki fan yi ñuy faral di jàng burdu bis biñ daan tijji burdu li si ëpp sang bi ak xaalam yu neex yooyu dafa daan faral di ñëw jël micro jël micro jox ma su ko defee nekk di zikir ma topp si ginnaawam di ko jàppale loolu noonu mu ko daan defee noonu noonu la demee ba maanaam leer gi am jeexital si ñun foo xam ni ñun gis nañ ni ñun ñi kat am nañu talent ci way euh, soxna Astou xam naa rek ñu commencé ak yow si playback bi ci aaxir ndaanaan ci zaahir ci baat doon loo Cheikh kàllaama gi sax du ne nu neen yaa jàppaar ñun yow la ñu gëm te mënatuñoo gëm keneen ñun yow la ñu miin te bëggatuñoo miin keneen njaboot gi yow la ñu xam te bëggatuñoo xam xayir wa mihdarihi lazim da ngeen di dof dof lu rek xam ngeen ne kenn mënta mel ni moom jub jam ak njàmbaar rek ngeen xam ci moom du doom ak ndonoom ma tax ba kenn mënta mel ni moom li firi xaaf di borom ñaanu xaas rek war na tax ngeen tey ci moom el cheikh xanaa du yaa ma may xaal muy samay machin saadal babul miftah da la yéem demal équateur bu la neex da lay teg équation attention doo gis fi ngay jaar ci addition pay soustraction d'autant plus que sa table de multiplication mokkul faw nga lajj ci division ay jëlal sama dossier yóbbu division des investigations criminelles saa yoo doonee noonam ma doon sa criminel fort Chérif Oudou Anwar su ngeen wax si sunu sang bu tedd bi daw na yaram lan moo la inspiré ba nga euh, bind way bu ni mel ah macha allah ndax moom lépp loxoom bu tedd bi la bi fi dara newul ah mooy mujj si ñun tamit bu lépp ñëwee macha allah ñun mënuñu dara parce que fowewuñu way xamuñu ko xëy na moom moo ñu yéene rek ba pare may ñu ñu mën a riim mu yomb ci ñun kon donc xam naa war na ñu mën a góor góorlu ba def sax lu ëpp loolu moom parce que Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh lépp loo def ngir moom defoo ko ngir moom sa bopp nga ko defal parce que moo lay fekk tekki woo dara mu def si yow dara matuloo dara mu def si yow dara xamuloo dara mu def nga xam dara macha allah tabarakallah tabarakallah macha allah macha allah vraiment ñu tàcc bu baax soxna Astou Diop ci prestation bu exceptionnelle bi mu def dina ñëw ak moom léegi ci particularité am te yéen ñëpp dégg ngeen ba muy woy particularité bi mu àndal te ñun ñi dugg ak moom ci diaspora bi dès tout tout début de la diaspora gis nañu particularité boobu ci moom na dinañ ci ñëw ak moom tabarakallah mu mel nak nag dañuy bàyyi Souleymane Cissé momit mu defal play bagam tabarakallah comme nous leen ko waxee sank rek c'est un divertissement spirituel dañuy waxtaan waaye di dégluwaale suñu artiste ndax seeni production amna solo kon ñu tatchu ba Seydi Souleymane mu defal no prestation tabarakallah ah mel Mahdi al Muntazar ñu tatchu bu baax tabarakallah juddoom ak ndonoo ma tax ba kenn mënta mel ni moom macha allah wante li mu firi xaaf di borom ñaanu xaas rek war na tax ngeen tey ci moom el eh Cheikh xanaa du yaa may xaal muy samay machine Cheikh tabaarakallah tabaarakallah macha allah <laughs> masallah masallah tabarakallah ñu tàccu la jëm ju tedd ji jërëjëf jërëjëf yaa imam al mahdi al muntazar mawlaya sayyid muhammad el cheikh sangu jamono tabarakallah jërëjëf jërëjëf tabarakallah ñu tàcc bu baax sang bu tedd bi ci terang bu tedd bi ñu defal tabarakallah waa kon ñu déglu seydi souleyman sidi eh, souleyman sissé mu defal ñu plega bagam tabarakallah ànd ak ay eh, accompagnatrice am ndeysaan tabarakallah kon Seydi Souleymane bisimilah. tabaarakallaahu bi yàlla dogale, ñu nekk axiru zaman ruh yep, ma mar leer jëmm yëpp soxla ku leen gàgganti ak ku leen gindi teg leen ci njub loolu nekk lu jafe ci axiru zaman yàlla xool ndencam bi nga xam ni moo gën ci ay ndencam mu yabalal ñu ko ci àdduna muy imam al mahdi al muntazar mawlaay seydi mouhamed el cheikh nekk kado àdduna kado boobu nag moo tax ñu ni xaaral rek ñu begal leen comme yéen ñëpp mën ngeen ko ñu ànd si benn une minute rek su ko defee après Ismaïla déclenché son bi ñu mën ci ànd kon wax leen kado de la fin des temps imam al mahdi al muntazar Sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Cadeau de notre Imam al-Mahdi al-Muntazar, cheveux de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Con cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar. Sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire.

شيخ ديدان سريف ميسيد الليل لكل في فين أكلنا قوار يا دي بي سيدي محمد الشيخ تجار يا دي في دست ليرة شريحة بي أم حقيقة بي tabarakallah tabarakallah ñuy remercier Seydi Souleymane vraiment ci prestation bu am solo bi mu def kon soxna Roqee daf mel na euh, introduire euh, Cheikh Maodo Diouf ndeysaan moom it mu defal no play bagam tabarakallah ah ñu wax gën tatchu ko rek waaw gën tatchu ko bu baax tabarakallah Cheikh Maodo def play bagam ñu delu soit inshallah Cheikh Maodo Diouf wa ñu àndandoo rek way sa bu ñu gisee Seydi mohammed El Cheikh tabarakallah macha allah سوا ان شاء الله ابو نقيس سيدي محمد الشيخ سنو خولي دل سنو روحي لير جرجب قطب الاقطاب الكبير سالير جي ام نجاخي تل سنون سابو نقيس سيدي محمد الشيخ سنو خولي دل سن روحي لير jërëjëf xutbul axtaabul kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun saabu nu gisee saydi Muhammad el Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa gi am na jeexital si ñun saabu nu gisee saydi Mohammed el Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa gi am na jeexital ci ñun cofeel gi nu am ci Cheikh Tidiane Chérif ننوك قرمي سنو سنگ جرجف إمام المهدي منتظر سلير جي أم نجيخ ترسنون سابنو كسي سيدي محمد الشيخ سنو خولي دل سنو روح جرجف قطب الأقطاب الكبير saleer gi am na jeexital ci ñun cofeel gi nu am ci Cheikh Tidiane Chérif nañu ko gërëmee sunu sang bi jërëjëf imaam al mahdi muntadar saleer gi am na jeexital ci ñun saa bu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuhi leer جرج قطب الأختاب الكبير سلاكي أم مجاخي تلتنين سنجي بلنا دفلن يبل شفر تشيخ تجار وكدف يبل دال دي الله تخي الله ذلال النصر أو ذلال الفتحة شهادة المحفور سنج بك واخ جسي سيدي محمد الشيخ سنخل وحيدا سنير هلال jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun sang bi ne def leen yóbbal cofeel ci Cheikh Tidiane bu ko def yóbbal dal di texe ëllëg zilaalul nasra aw zilaalul fatha shahaadatul maxfuur sang bee ko wax saa bu nu gisee Seydi Mohamed El Cheikh sunu خليدا سني روهلا جرج خرب الأختاب الكبير سلاك أم جاخي تلسنون سنك بيلين سخل تبرب مدينة شيخ لير ينن أكلير شيخ تجان يمور الروح فخوت سلا سلاك أم جاخي تلسنون سابون كسير Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun sang bi li nga saxal ci bërëbu Medina Cheikh Medina Cheikh leeru yonen أكلير شيخ تجا شيخ تجا ورا الروح يفخ وتسلا وتسلا سالير كي أم نجاخ تنسنون سابون كيس سيدي محمد الشيخ سنو خالي دل سني روحي لان جرجف قد أختاب الكبير sa leer gi am na jeexital ci ñun sang bi tasuloo yaakaar gaay ñëwoon wut si la wut si la bi mu yegsee wan nga leen Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mu dund leer si xaqul yaqin yaqin sa leer gi am am na jeexital si ñun saa bu nu gisee Seydi Mohamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuhi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun sang bi tasuloo yaakaar gaayu ñëwoon wut si la wut si la bi nu yegsee wan nga leen leeru cher leeru cher dund leer si xaqul yaqin sa leer gi am am na jeexital ci ñun saa bu nu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuhi leer jërëjëf xutbul axtaabul kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun yow sang bi yow lañu yaakaar almahdi ngand mi yow lañu doon xaar yaa aliyal aqtaabi yaa di borom leer yi di si nandaleer minal buxuuri wal awaar saabu nu gisee Seydi Mouhamed El sunu xol yi dal sunuy ruuxi leer jërëjëf qutbul axtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun yow sang bi yow lanu yaakaar almahdi ngand mi yow lañu doon aqtaabi yaa di borom leer yi di min al buxuuri wal ñu gisee Seydi Mouhamed El Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruuhi kabir sa am na jeexital ci ñun ya mawla ya Seydi Mouhamed El Cheikh Cheikh Babacar Gueye wayoon sang bi yaa ci ku ñaawi jaar-jaar jox na la loxo mooy set nga si bàkkaar ngay dem mu jox la yóbbalu istixfaar digal la toogaayu mbalaanu wasifa mu di la waar tubaab nit ku ñuul ba ci naar yaa na réyem funni doo fa dem nañ la fa sangi sang bi aksi lal mbalaan bàkk cheikh mi ko saar lii moo waral fu mu àddoo xol yi fees ruux yi leer sangi bi doo kilifa gu gaare doo ku gaar sa pas-pas sa cofeel ci mawlaaya cheikh dëggal na ni yaay jàmbaar mbindeef mënalu la dara cheikha yi ar sant nanu yàlla bi nu la ame kon taalibe yi nanu dikkër tay déglu di sant tey teewlu dundu leer tey doylu imaam almahdi yaa woolu ndam li agsi na leer ga jolli na yow sang bi yow lanu yaakaar almahdi ngand mi yow lañu doon xaar yaa aliyal aqtaabi yaa di borom leer yi di si nandale min al buxuuri wal awaat saabun gisee saydi muhammad el cheikh sunu xoli dal sunu ruuhi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabir saleer gi am na jeexital ci ñun sangi bi jërëjëf xutbul gi am na jeexital ci ñun jërëjëf xutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun jërëjëf gi am na ci ñun jërëjëf xutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun jërëjëf imaam al mahdi muntazar muntazar sa leer gi am na jeexital ci ñun jërëjëf imaam almahdi muntazar saleer gi am na jeexital ci ñun jërëjëf imaam almahdi muntazar saleer gi am na jeexital ci ñun

mais etam suñu artistes yi nga ils ont un rôle capital à jouer dans la mission C'est un rôle warul yam rek ñu def playback wàcc war nañu am un cadre d'expression te lii moo waral tapis rouge tabarakallah kon ñuy remercier di dellu si waat nag ci suñu xarit Cheikh Bachir mu mel ni Cheikh Maodo bu ñu waxee Cheikh Bachir wax Cheikh Maudo. ndax dama mës dégg Abdou Aziz Mbaye ak Abdou Aziz Kébé ak Makhtar Kébé defe naa ni ñëpp xam nañ Kébé Matar bi jóg wax Abdou Aziz Mbaye mu ne que lépp lu ma mës a bind yow yaa ko way lépp loo mës a way man maa ko bind ci góor gi kon dafa mel ne loolu daje na ci Cheikh Maodo ak Cheikh Bachir mu mel ni Cheikh Bachir bu ñu waxee gàmmu itam wax xutbul axtaab bu màgg boobule di maam Seydil Hadji Malick Sy ci li mu def ci wàllu gàmm ba bu ñu tuddee gàmm ci Sénégal xel dem ci moom waaye mu mel ni gàmm di dox depuis 1902 ci bam ko defé and ak mam Rawxaan Ngom ba tay fi ñu nekk ci 2022 mu melni 2022 mu tollo ak jamono ko tedd ki di imam al mahdi al muntazar mu melni li la doon la Cheikh Bachir pour ñeukante ak temps bi muy ci jamono Imam al mahdi al muntazar nan la gamu taxawé manam ci jamono imam al mahdi mom imam al mahdi nga xamni mo don yonent bi alayhi salaatu wasalaam don Mawlaay Cheikh ahmed tijani kon itam taw héritage magni mom lan la apporter ci gamu mom imam al mahdi ak al muntazar ak ci khassid yi nga xamni def nga ko ci mom yow Cheikh bashir ñu bëggoon itam nga laalal ñu ci xasida yooyu bëggal ci wa xadare bi ndax guddigi ñu nekk tay tay di guddigi gàmmu tabarakallah kon Cheikh bashir kàddu gaangi non ah tabarakallahu Cheikh Massamba Coulibaly ci question yu am solo yooyu waa xam nga gàmmu gàmmu baat bi ceddo yi ñoo ko fi indi baatu gàmmu moo tax mag ñi mawlidu nabi lañ daan wax parce que gàmmu mooy li ceddo yi daan daje ca boo boo jëlee misaalu Tiwaawoon ca la fa ñuy wax jaaloo ngi jaan jaalo ak euh, fa ñuy wax euh, kuli ngi jaan jaalo ca Tiwaawoon ak fu ñuy wax kuli ngi jaan ceddo yi fa lañ daan daje di jël seen yooyu tabaarakallaahu di defi caaxaan di tëgg di fecc di defi caaxaan maam Seydil Hadji Malick nag ak stratégie te mu bokk ci ñi nga xam ne moom la sang bi di wax ne dañu ame dañu ame essence spirituelle parce que yooyu aktaab yi la ko yàlla jox moo tax dañuy bokk ni ñuy gàmmu soo xoolee dañuy bokk ni ñuy gàmm maam Seydi Hadj Malick lépp gàmm moom alquran la woon waaye da dafa nekkoon bés boo xam ni bésu daje la pour ñi nga xamante ne ñooy muqaddam yi nga xam ne tasoon na leen ci ré ci ci àdduna ñu mën di daje ku ci amoon question boo xam ne war nga ko mën a laaj danga koy coché ba at bi dellu si tombeek mawlidu bi boo ñëwee tabarakallahu moom mu tojal la lépp moom maam Seydi malik Malick boole kaag nag jàng alquran waaye fàttali tabarakallahu jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daraay caaxaan amu ca woon daraay caaxaan amu ca woon parce que dafa bokk ci ñi nga xam ni dañu dañu dañu dañu bokk ci ñi amee euh, essence spirituelle bi ak taab yee amee moo tax gàmm moom amul yooni caaxaan boo koy comparer nag ak léegi ni ñuy gàmmoo daanaka sax tabaarakallaahu dafay xaw a doy waar ndax gàmmu yi léegi mën nga dem ba ñibbisi te doo dégg yonent bi doo dégg ñu jàngale fa benn jikko waye tamit li ci ëpp ay tiaxana fay am kon ñi nga xamantene ño ñoo ci cadre bobu te moy wama arsalnaka illa li bihi qawmak yàlla daf leena yebal ñoñu ñu samp gàmmo pour ñu mëna bëggal ñi nga xamantene ño gëm yàlla ñi nga xamne ay nitu yàlla lañ motax sang bi tabarakallah bokk ci cadre bobu bo xolé gàmmoom yàlla rek nga ci yëg ci julli ya ci zikri ya ci waxtan yi nga xamantene ne tabarakallahu mbokku taalibe ñu koy siq ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun naxwa alxaraami udulu ci lolu base bobu lako sampe won mom mam Seydi Hadj malik neene dal kuma ku ma mën ñëwal gàmmu te ñëw bi ngay ñëw gamu yàlla lay indi nang fi nekké jàng alxuraan ak zikr tuddu yonentibi waye bu fa def lenn lo xamantene lu haram la bu fekkee ne da ngeen di ñëw rek pour nga magalel ma yonent bi ci màggaay bi nga yàlla magal ba ne ko innaka la ala xuliqan azim kon su boba nak na ngeen ñëw waye kep ko xamne bo boo nammee ñëw da ngay def lu bon togal sa kër buñ ko doon wax tay dañuy toog seen kër danañ bari ndax xamna ne ñi joxante rendez-vous ci gamu yi legi bari nañ de amna mag ñoo xamne hajj mawdo ci àll bi seeni njaboot dañ leen a topp pour ñu sos gàmmu mais dañoo lànk parce que xalaat nañ ni bu ñu sosee gàmmu te amuñu ndigalal gàmmu bàkkaar bu jógee ci xew boobu noonu cérémonie bi ñuy créé ci muy gàmmu da da leen di topp te ñu bari léegi yàlla daf leen a nattu dañuy joxante ay rendez-vous ci gàmmu yi di def lu bon mais demal gàmmu yi mais ay boroomi grand mbubb yu rafet ngay gis ñu dugal leen ci oto police yi ñu ngi sàcc ñu ngi drogué wu ñu ngi def leneen loolu amul fi nak fi yàlla rek ka fi nek bo fi nekké sax da ngay da ngay jaaxle sax da nga nan xana jaamu yàlla mom fi rek la am da ngay foog ne jaamu yàlla Medina Cheikh rek la am parce que ni ñuy téggé yëf ci ordre lépp tabarakallah julli joté ñu def ko bu wasifa joté ñu def ko bu zikr joté ñu def ko bu 4h du matin joté ñëppay jóg te loolu nak doo ko gis ci yenen gamoy kon cadre bi mu bok motax mom moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh bu ñewé nak ci li nga xamantene mom lañu ko way xamna ne skay que xalifatul Mustafa sirajuddin li ko waral moy cadre bi mu bok dafa bok ci ñu don yonent bi sallallahu alayhi mustafa sirajuddin parce que يالا دافا داف موي خليفه يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واي سراج الدين موي كيغا خامتيني موي ليرال لامب بيغا خامني موي ليرال دين واي خليفه لا يتم تي كيغا خامتيني تبارك الله مو امي كاوي كاوي ييب موي مولانا شيخ تيجاني يو يا نجيت لي يو مولاي سيدي محمد الشيخ مولاي سيد محمد الشيخ يوي ياي نجيتلي ياي كيغا خامتاني ياي قطب بي ياي غوص بي ياي ختلي مندفو يالله انت الابن يو ياي دوم مولاي شيخ تيجاني ياي سكري يوننتي بي دي سكري يالله دي سكري مولاي شيخ احمد تيجاني waaye nag yaa ngi siiwee ci mawlaaya sayidi Mouhamed El Cheikh te mu jaaxal ñu bari nag El Cheikh lu jaaxal ñëpp la jaaxal na àdduna bi yëpp waaye tabaarakallaahu wadata xadamayka xaqan wadata yow mawlaaya sayidi Mouhamed El Cheikh teg nga sa tànk xadamayka sa ñaari ndëggu xaqan ci dëgg bi shariati ak sharia ak xaqiqa sharia ak xaqiqa مجمع البحرين بحر الشريعه وبحر الحقيقه يا كوندار كيب نده امام مالك دفني ومن يتفقه ولم يتصوف فقد تزندق ومن يتفقه ومن يتصوف ولم يتفقه فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق nee kep ko xamne da nga jang sharia te jango tasawuf nee koku dof nga motax ñu melni Omar Sall yu dof yi naan gàmmu xamuñ lu xew parce que tasawuf tax sharia lañu jang rek foog ne fa la xam-xam yam te haqiqa bangi fi nilta am nga lepp lo xamne nala am nako arijalullahi yeñ dan tuddu ربحت ريات مواهب شيخنا من مولاي من سيد محمد بشير جوف رفعت يكتنا ريات رفعت يكتنا يا مولاي سيد محمد الشيخ ريات مواهب رايات مواهب شيخنا درابو sunu mayu mawlaaya cheikhu tijaan alladi ki nga xamante ne ku ko am soxlaatoo dara كوكو خم سخلاتو دارا موم تبارك الله موتاخ مولاي سيد محمد الشيخ بوي وي تي موم تالا زوس بيغي اندال ساخ دا فا ييمي موي بانيخ بو اكستريم بوي واخ تي موم بانيخ بو اكستريم غي ام تبارك الله تا لولو يالا موكاي ديف تي يو كون تبارك الله خمنا تعبدكم ما شاء الله والسلام عليكم kon dañuy jox rek kàddu gi soxna Astou mu répondre ci question boobu kenn ku nekk répondre ci même question bi kenn ku nekk particularité Madame maanaam ou dee wàllu Maodo Diouf gis nañ ko dafay way te du utiliser par exemple instruments musicaux yi nga xam ni dañ koy gis gis nañ Seydou Souleymane mom, ci côté boobu daf ci yëngatu mu am solo mais aussi gis nañ soxna Astou mu am benn particularité ñom lañu ñu kenn ku nekk expliquer ñu lu waral particularité bobu nga xamni mom moom terminer ak émission bi tabarakallah waye remercier itam ñi nga xamni ñom lañu andal ci émission bi ndax ku gis tapis rouge ni mu mel xamni y'a toute une organisation derrière xam dal leen remercier un tout petit peu tabarakallah kon soxna Astou kàddu baangi non wa waaw macha allah gisee particularité bobu parce que yalla bu dee def la may ci barké sang bu tedd bi nga mëna def riim. ñaar rek nga mën def soit que da ngay def slam nga boole ko ak rap mu nekk beneen style kon loolu orientation sang bi la man dama naan moom moo ma orienté foofu d'autant plus que ne way booy xool garab la mais dafa biri ay branche culture branche yëpp a ngi si foo di nga gis artiste boo xam ne foo ko woo mu ñëw macha allah di nga gis artiste boo xam ne foo ko woo mu ñëw loolu mayam la mais tamit borom ëtt bi moo organisé ni mu bëgg organiser ku si nekk fa nga nekk mu may la fa loo xamante ne saa boo déggee sa nawle way nga bëgg c'est parce que loolu bëggoon nga ko sax mën mais mënuloo ko mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te ku ànd ak sang bi da ngay nangu dogal kon lu mu dogal ci ñun ñun bëgg nañ macha allah mu ngi noonu jazakallahu xayran. ah macha allah comme ni ma la koy waxee woon rek dès le début maanaam sang bi moom moo organiser lépp te yàlla dafa ñun. def ñun dañu top ci ginnaawam rek euh, maa ngi koy fàttaliku 2011 biñu nekké di def parce que ñun chaque prestation buñ ko daan def gamu micro yi lañ daan yor sans instrument mais bi ñu ba xamni ni mélodie divine war na mën nekk parce que tay ñi ngi ñaan yalla dem au niveau international té dañ fay fekk suñuy nawle yo xamni déggu ñu làkk biñuy dégg té en plus amna ñom sen civilisation ak sen culture bo xamni ñom mom lañuy dund su ko defee ñun ci biir civilisation biñu ñu nekk ñun ñu ñaan yàlla fekk si leen si loolu ba véhiculer message bi nga xam ne moom lay sang bi di jàngale su ko defee kenn ku nekk dinga mën a jëriñu donte bokkuñu sax euh, pays wala comme culture bi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax bi ñu xoolee ba gis ni mélodie divine mën nga dem organiser sa way salon nit ki nga xam ne mën na toog yor kurusam di déglu way bi te du ko yàqal dara nit ki mën nekk si salle de sport mën a déglu bi te du ko yàqal dara nit ki mën a nekk ñu teg alxuraan muy jàng alxuraan di dégg way bi te du ko yàqal dara ñun si loolu la ñu focaliser wu. léegi nag loolu yëpp dañu siy liggéey ak liggéey yu rëy yoo xam ni du ñu fi génnee benn single wala benn album te waxtaanuñ si ak sang bi mu nekk di ñu orienté ak di ñu teg si yoon moo tax loolu rek moo waral ñu nekk ci fànn boobu macha allah di leen sant di leen gërëm. tabaarakallaahu kon ñu jox euh, soxo euh, euh, Cheikh Maodo mu indil réponse ci question boobu tabaarakallaahu. waaw tabaarakallaahu question boo am solo la parce que kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk ci xadara bi am na benn domaine boo xam ne xëy na jublu na la waaw man noonu laa ko mën tuddee xam nga nit boo bañee sonal sa bopp sonal nit ñi da ngay dem ci li la jublu am na ñoo xam ne yàlla moo leen dimbali comme ni ko Asi Diop waxee léegi ni way garab la waaye dafa bëri ay branche dëgg la mais kenn ku ci nekk ci ñun branche bi nga xam ni moom la la sang bi jox na nga fexe topp ci principe bu Seydi Mouhamed El Cheikh xam naa réponse bi dafay gàtt ki nga xamni da fay way ki nga xamni da fay way Seydou mohammed El Cheikh xam nga lum ko sante mom muy taggu yonenti bi selon ci halu yonenti bi waw selon ci halu yonenti bi mo yonenti bi dawul titeru bul titeru yonenti bi dawul njistal bul njistal yonenti bi bëggul won ngay def dara pour neexal sa bar pour nit ñi xamni yow mi comme xam lool bu yagge day indi njistal yonenti bi bëggul lool Seydou mohammed El Cheikh lool motax mu ni bu len bu ngeen de tagg yonenti bi na ngeen ko teg ci xaqiqa na ngeen ànd ak dal na ngeen ànd ak teggin te damay wax ni way sans mélodie ak way mélodie benn la parce que yëpp rek tarbiya la ñun bi ñu ci keppaar gi dañ yaakaar ne way barkeelu la mais Seydi Mouhamed El Cheikh moo ne way tarbiya la ki nga xam ne daal dafay way maanaam euh, mu ànd ak instrument naka fexe canaliser ba du génn spirituel ki nga xam tamit dafay tagg yonent bi sans micro naka def ci teggin bi nga xam ni moom la yonent bi daan santaane ta mooy dal ak ya ajo aju tabarakallah xam naa ne rek dañuy temps bi moo nu njëtt ndeysaan dañuy jox soxna astu euh, mu defal nu benn playback bu ndaw waaw ndeysaan euh, ñu loogam koy tëje nga xam ni heure bi jot na ba pare ñoo ngi ciy jégalu nag bu baax tabarakallah kon soxna astu nga defal nu prestation cofeel di def ci xol

ووقارا هذا وللعزيز وشيخ الكريم الذي أدل على كل شيء وسند الذي لا ترى

kàttanu bëgg Cheikh xol bu bëgg Cheikh leer lekk ka ba mu jeex ruuxaya yoo bëgg Cheikh te Cheikh a ko mën a nandal ba mu aatan googu mbëggeel sa habibi mooy sama habibi Sen habibi Moy sama habibi Tabarakallah donc ñoo ngi remercier wa Medina Cheikh Tijani yëpp di remercier suñu invité yu ñu amone ci plateau bi ñëpp xam nañ ni fi mom bu heure julli joté rek heure julli jot na tabarakallah waaye ñuy remercier mënuñu def émission ba mu jeex te remercier wu ñu ko ñu wax Ibnu Abbas Thioub ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci émission tapis ndax ku xool tapis ak organisation bi ci am yépp war nañu yëg ni am na nañu nekk ci ginnaaw kon ñuy remercier Ibnu Abbas Thioub nekk te Chine ci taxawaay bi nga xam ne def na ko tabarakallah waaye di remercier imam maam Maguette Sow ci affichage beeg yi ngeen gis yépp tabarakallah ak di remercier ñi nga xam ñoo nek équipe tapis rouge De ci tudd président Babacar Gueye des président Dayatul Iman bu Dakar mais ñaan ñepp a ko tabarakallah ci taxaway ak détermination waye di remercier Cheikh Modou Fall mi ngeen gis ni tabarakallah ak ñi ngeen gis ñepp sunu papa Cheikh Djibi Ndiadé euh, ñoom Seydou Souleymane Cissé ak équipe bi yëpp ndeysaan di remercier Soxna Roqaya ak suñu invité yu tedd

Bachir moom la ni jox kàddoom tabaarakallaa ak président Babacar Gueye kon ñu tàccu leen tabaarakallaahu tabaarakallaahu Cheikh Maodo Cheikh Maodo Diouf tabaarakallaahu ci kàddoom moomeen balaa ñuy terminer tabaarakallaahu di ñëw ci soxna euh, Cheikh Souleymane Cissé tabarakallah ci cadeau bi nga xamné itam mom lañ koy jox a ñu terminé ak soxna Astou ndeysaan momit ci cadeau bi nga xamné xamna ni soxna Roqeya moo koy présenté son Roqeya présenté ko cadeau bi nga xamné mom moom la ko tapis rouge offrir ñu ñaan nag ñëpp tàccu soxna astu ci constance am ak taxawaayam ak lépp tabaarakallaa ñu tàcc ko bu baax ci cadeau bi nga xam ni tapis rouge ma ko ko jox waaw ñuy ñaan nag euh, suñu ñi nekk tapis rouge yëpp ñu jege ci pour la photo de famille nga xam ni moom la ñuy terminer waaye ñuy remercier les chaînes de télévision de la Khadara ngeen gis leen ñoom ñëpp ñu ngi ne ci tableau bi ku mel ni wala Dunya ti Medina cher TV euh, euh, Nouril Moutalsam TV, Tabarakallah, Aïni Nour Al-Muntazar, MT2 Al-Mardi, les enseignements du mardi, Cercle des privilégiés du Zikr, la sagesse du mardi, Espace des enfants, itam ñu leen remercier, Al-Mardi Imo, itam ñu leen remercier, Maccom, Al-Mardi Poulet, Al-Mardi Miel du Sud, Nous remercions les partenaires qui nga xam de terminer en beauté en photo de famille avec euh, waa nous ñaan remercier les remercier artistes qui ont ci bi émission bi émission xadara bi la émission Cheikh Al Mahdi Al Muntazar mi opportunité émission première édition de Gamou 2022 tabarakallah BSM TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam.